mu ne lii beneen njariñ la bu aju ci ñàkk a sellal ñu koy tudde ngistal al imaamul Ghazali ak al imaamul Qaraafi dañoo wute gis-gis ci ñàkk a sellal bokk nañ daje ci ne jëpp jëfi àllaaxira joo xam ne ba ko jaam bay def doomi aadama yee tax mu di ko def mel ne bëgg ñu jox ko alal mbaa ragal ñu xas ko mbaa bëgg ñu yëkkati ko màggal ko moo xam julli la moo xam dikkara la moo xam geneen jëf la loola ngistal la ak ñàkk sellal la fa ñu wutee nag mooy jëf joo xam ne jëfi alaaxira la ka ko def nag geesu ci sax doomi aadama yi waaye nag am na lum ci bëgg lu jëm ci wàlluk bakkanam jëm ci wàlluk addunaam te it ci yàlla rek nag la ko ci bëggee mel ne muy jàng saaru waaqiya guddi gu ne ndax bëgg am alali àdduna foofu la ñu wutee alxazaali day wax ne bu jubloo ci bu amee alal ja delloo ko ci yàlla day kon du doon ngistal waaye nag bu ci jubloo rekk lu jëm ci bakkanam mbaa àddunaam mu daal doon ngistal alxaraaf yi moom day wax ne jëpp jëf joo xam ne ajuwul ci alaaxira ngistal mënu caa am mel ne bu wutoon ay yére yu rafet mbaa kër gu rafet mbaa leneen i àdduna loo xam ne daa bëgg nit ñi bañ koo xas mbaa daa bëgg nit ñi gis na mu waaja na mu yànjee tagg ko loolu lépp du ko taxaroon ngistal ndax ajuwul ci jëfi alaaxira mu tekke ne jëfi alaaxira it ndegam koo ko geesuwu ca nit ñi rek bu ci bëggaale lu aju ci wàllu bakkanam niki muy jàng saaru waaqiya guddi gu ne bëggaam alal ju lew rek doonte jublu ca delloo ko ci yàlla bakkanam ak addunaam rek a tax du tax mu doon ngistal wala mu aji màkka bëgg caa yaxantuwaale li ñu wax commerce la amee la ci alal kon jëmmi aji ga wàllu yàlla la jëmmi yaxantu ga wàllu bakkanam la ak addunaam wala ñu woote xare ba muy dem ci xare ba ndax bëgg am ci yàlla amaale ci alal ndax bu ñu li ñu gàñee yéefar ya mu am ci alal ju bari jañ cay jëlee yooyu yëpp alxaraaf yi moom day jàpp ne ak sellal la doonte sax bu amee loolee muy wut ci bakkanam ak addunaam képp lay jëmit teewu ko doon ak sellal te bu doon nag ci alxazaali yi moom day wax ne lay tax loola sell rek mooy mu yéene bu amee àdduna ja delloo ko ci yàlla boroomam waaye bu ci jubloo rek bakkanam ak bànneexam ak àddunaam rek mu daal doon ngistal jëf joo xam ne ka koy jëf da caa jublu ngir yàlla ak leneen loo xam ne daa dellu rek ci bakkanam ba àddunaam xam ne kon jëf ja lee am na ca lee am na ca mën naa am leen la ëpp doole mën naa am ñu yemoo képp alxaraaf yi day wax ne bu wàllu yàlla ga ëppee doole ak ñu yemoo képp ñoom ñaar tuyaaba rek lañ ko cay fay bala mu cay ñàkk tuyaaba rek mbaa ñu ko cay teg dara rek wàllu bakkanam ak àddunaam ëpp doole alxazaali moom day wax ne déedéet dañuy seet bu fekkee ne wàllu yàlla ga moo ëpp doole ñu fay ko ci tuyaaba su fekkee ne wàllu bakkanam gaag àdduna ga moo ëpp doole ñu teg ko ca mbugal su fekkee yaar yëpp yemoon nag mu dem ak loxoy kese du ci amee tuyaaba du ci amee bakkaar yooyu nag yu bare bari la mel ne bu doon jàpp yéene ca yeesal am jàppam fekk mu tàng it mu yéene ca serelaale aw yaramam kon yeesal ga daa dellu ci yàlla seral ga yaramam daa dellu ci bakkanam wala mu ne day gàddaay dem ci béréb bu ñu mën a jaamoo yàlla waaye nag da caa boole am na soxna su fa nekk soo xam ne su demee da koo bëgg a takk muy soxnaam gàddaay ga ngir yàlla daa dellu ci yàlla takk ga soxna it daal di dellu ci wàllu addunaam ak wàllu bakkanam wala ci misaal mu gën a jege bu sëñ bi wootee rek moo xam ak màggal la moo xam ab liggéey la nga dogu ci wuj rek woote bi te yàlla tax amul dara lu mu ca boole kooku maasi nañ ci ne ak sellal la gu dara raxut bu ca boolee nag yóbbaale fa am njaay bu demee jaayaale ko fa wala am na lu mu bëggoon waxtaanee sëriñ bi bu demee waxtaanee ko moom mbaa daal jëriñ ji tey àdduna rek jum ci bëgg a boolewaale kon dal nay am lu dellu ca wàllu yàlla am lu dellu ci wàllu bakkanam ak addunaam yooyu yëpp boo toppee alxaraaf yi moom day wax ne dara sikku ca ak sellal la te bu dee alxasaali day wax ne loolu ak ñàkk sellal la mënees naa topp nag ni alxaraaf yi waxee moo gën a woyof gën a jàppandi ci niti kese yi lay bon daal mooy wàllu yàlla ga woyof lool ba nga xamee ne borom moom doo nga du jëf jëfi jë mel ne sëñ bi woote mu yore njaay moo xam ne bu demee da ko faa bëgg a jaay wuy jiwaale itam woote ba waaye nag waaye nag njaay moomu yóbbaal di ko fa jaay moo ko ëppal solo ba àgg na ci bu amutoon njaay moomee di ko fa yóbbaal di ko fa jaay kon du wuy ji woote boobee kooku moom daa woyof lool ba bu ci amul bàkkaar it mel na ni kon du ci am tuyaaba wala commission bi nga xam ne ñooy toppatoo ajkat yi mu sàkku caa bokk kooku mën naa am aji màkk jafe ko mu yére nag buñ ko ca boolee mu far jooxaale farataam am ca tuyaaba yi yàlla boroomam nde sax lañ ko cay fay ci alali àdduna moom amalu ko solo mën naa am itam nag alali àdduna ji rek moo ko amal solo fekkoon du woon lañ cay fayee ku nekk woon kaay ñu yóbbaale rek boo demee aj sax du sawar ci dem mbaa du dem yooyu yëpp am na teqale googu saa yoo xam ne daal wàllu addunaam ga moo gën a yitteel bu ci amutoon rek du def jëfi joojee loolu moom day woyof lool ba àgg ci luñ ko war a tege mbugal mbaa boog bu ci amul mbugalit xëy na du ci am tuyaaba ak tabaraani ne jëf joo xam ne kooka ba mu koy tàmbali yàllay kese kese moo tax gannaaw ba ak ñàkk sellal dugg ca du ca wàññi dara bu ko naqarloo ci xolam rek doy na na fexe rek ba balay tàmbali jëf ji moom ne yàllay kese tax bu duggee ba ca biir nag ak ñàkk sellal ni ki bëgg aw tagg mbaa ragalu xas tàmbali caa dugg naka loo naqar ci xolam rek tam bàyyi noona du ca wàññi dara dañoo dogu sax ci ne lépp loo xam lu toq ci xolam la ci lu yàlla gërëmut waaye neexu ko bu ko mënoon dindi rek daal di koy dindi sànni loola kenn du ko ca topp dara du wàññi dara itam ci jëfam mu ne nee nañu li war daal mooy balaa nit a tàmbali jenn jëf mu fexe ba yàlla yi kese tax gannaaw bu ko tàmbalee ngir yàlla yi kese nag dem ba ci biir mi yëg ci xolam bëgg ñu sant ko ca mu mel ne kon bëgg ñu sant ko ca te daal doon gistal loolu du ci wàññi dara nee na am nañu suñu borom ne dañoo bëgg ku leen sant ci loo xam ne defuñu ko loolu daa dellu ci yahuud yi dañoo bëggoon ñu nangul leen ne leen li leen tawraat digal ci wax melo yonante bi ba ñëpp topp ko dañoo bëgg ku leen tagg ci ne def nañ loolu te defuñu ko nga xam ne kon la leen yàlla xase mooy bëgg ku leen sant ci loo xam ne defuñu ko mu ne nag doomi aadama li feek jeexul ci yàlla tàkk-tàkk dana di bëgg nit ñi xam la mu def xam ne def na lu baax daanaka doomi aadama mënu caa mucc lu may dafa dem ba jeex ci yàlla boromam ba gisatul lu may yàlla waaye li fi mu ngi gis lu bokkut ak yàlla rek di yëg ci xolam bëgg nit ñi xam ne def na lu baax sant ko ca ndegam nag loolu néexut a mucc kon dañuy jàpp ne képp koo xam ne bu yëgee ci xolam loola daal di yedd xolam naqarlu loola rek jaanam wàcc na loola doy na sëkk ndax buñ ko nee fexeel ba jëf jooy jëf bu sa xel toq ci bëgg ko yëg sant la ca mbaa dara mën naa mu daal di jafe lool lool mel ne ku ko teg lu mënta am kon daal na fexe rek boobu jëf ji muy jëf ca tàmbali ba na yàlla yi kese tax bu duggee ba ca biir it bu yëgee ci xolam muy xalaat bëgg ca aw tagg mbaa lu koy nuru mbaa ragal ci aw xas mbaa lu koy nuru na naqarlu loola rek te jàpp ne jëf ji moom dara sikku ca te nag mën naa mu dem a dem ba gisatut dara lu muy yàlla mi ko sàkk su boobaa nag lay mën a sellal sellal goo xam ne moom yàlla kese kese moo koy taxa jëf te cantug yàlla dong lay séentu ci lépp lu muy def donc bi yeesar la waaye andi woon na ko ca masaalikul jinaan daa am xeeti jëf yoo xam ne bu dee ci nit yàlla yi nga xam ne ngërëmul yàlla dong lañ war a geesu jëfuñu ngir ragal sawara jëfuñu ngir bëgg àjjana daa am yoo xam ne bu dee ci ñoom ngistal lañ koy tuddee te bu dee nitu kese nag moom ak sellal la kenn du ko tuddee ngistal mel ne jëf rekk ngir àgg ci yàlla bokk ci waa pay ba di xam ndey kuy jaamu yàlla ngir am jooju daraja ak ñàkk sell lañ koy tuddee bu dee ci ku bëgg a doon waaye yàlla dëgg-dëgg ndax waaye yàlla dëgg-dëgg moom lu muy jëf daa war a xam ne yàlla rek ku yeyoo jaamu la te moo digle jaamu gi muy jëf rek ngir sopp yàlla waaye du ca bëgg nag yàlla jegeel ko boppam boole ko ci waa pay ba mu bokk ci ñi xam ne loolu du ko yitteel nit ku yàlla dëgg-dëgg moom lay ak sellalam mooy jaamu yàlla ngir xam ne yàlla ku yeyoo jaamu la rekk waaye képp kuy jaamu ngir bëgg àgg ci yàlla bokk ci waa pay ba di xam ne ak ñàkk sellal lañ koy tuddee ci kaw nag mu bokk ci nit yàlla yooyee waaye nag bu dee nitu kese moom loolu du ngistal ak sellal la ci moom dara nekku ca ba tey bu dee jaamu yàlla ngir yàlla may ko ay karaama may ko ay xotti baax may ko mën a def loo xam nitu kese mënu ko loolu rek la jublu ci topp gi muy topp yàlla ba tey loolu du sellal dëgg-dëgg ci bu dee ci nit yàlla yi de bu dee nitu kese moom loolu dara nekku ca bu dee sant yàlla itam ngir yàllaa ne ku ma sant ma dolli la loolu képp tax koy sant dañuy jàpp ne loolu ngi sall bu dee ci nit yàlla yu màgg yu kawe ya yàlla nag moo ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma santee ma dolli leen nitu yàlla moom day sant rek xam ne yàlla ko yeeyu sant la waaye du sant nag ngir bëgg ndolleen bi mu jëkk jëkk tudd sax mooy jaam bi di def topp yàlla goo xam ne dafa neex ci moom rek digal na sax yàllaa ko santaane waaye daa fekk itam nag mu neex ci bakkanam loolu nag bu fekkee ne dafa yàgg a tàggatu ci lu neex yàlla rek neex ko ba mujj topp yàlla bu muy def neex ci moom loola moom daraja ju màgg màgg la ju naqaree jot la waaye nag nitu kese rek bu gisee yenn ndigal yi neex ko mu sawar ca lool yenn ndigal yi mu di ca tayeel te la muy tayeel sax mel na ne mu ëpp tuyaaba kon na seetluwaat bakkanam xam ne bakkan moom li ci ëpp loo gis mu jay sawar lool lool rek xëccu jëm ca ñàkkut lu ca aay ñàkkut lu ca nekk loo xam ne wàññan la ca jaam ba dañuy joxe sax takk-takk ne bu dee yaar yu baax yoo xam ne xamut ban moo ca gën ca moom na seet ba ci bakkanam gën a sawar gën koo bànneexoo mu bàyyi ko te dem ca ba ca des wala boog mu seet bu fekkoon ne dee dafa taxaw ci kanamam jëm si ci moom yaar yooyu lu mu cee gën a bëgg dee fekk ko ci rek sëy ba mu jëm ci loola ba tey am na nag lu mu tudd loo xam ne moom ngistal la ci ñëpp ñëpp mooy di topp yàlla te jubloo ci lu may nit ñi màggal ko teg ko fu kawe kawe loolu moom ngistal la ci kenn ku ne ba tey it bu tasee nit ñi sëgg wane ragal yàlla goo xam ne nekkul ci moom te bu leen gisut du def noona loolu itam ngistal la ci ñëpp ñëpp moom am na nag sew sew mat a jàpp foofu mooy jëf ju baax joo xam ne daana ko jëf su wéetoon moom rek itam du tee mu jëf ko ngir yàlla tey nag nit ñi tax mu ne duma ko def ndax kon dañuy wax ne damay ngistal bañ ñu wax ne day ngistal rek tax mu bàyyi jëf joojee bu ko bàyyee ngir bañ ñu ne day ngistal rek daanu na ci ngistal ndax bu doon def ngir yàlla kese moom waru caa séentu taggu nit ñi mbaa seenu ŋàññ yàlla ma ko taxoon def naka jekk rek na ko taxa def tey jiitam bu mu ca geesu dara dara tawit li gënoon mooy mu rafet njort ci mbokki jullit ñi ba du yaakaar ñu waxal ko dara naa day ngistal ak dara day jàpp ne rek bu jëfee itam kenn du xalaat naa day ngistal mbaa dara bu jëfee it dañuy jàpp ne yàlla rek a tax loolu war a fas ci xolam bañ a ñaaw njort ci nit ñi kon daal na seetlu ne lépp lu mu daan def te yàlla tax rek moom bu nit ñi tax mu bàyyi ko ngir ne rek su ma ko defee ñu ne ma da ngay ngistal na def rek te yàlla tax lu may nag dafa jàpp ne bu bàyyee ba wéet lay gën a mën a teewlu jëf ja la koy gën a mën a sellal mu ne kon nag na bàyyi ba wéet def ko rek digganteem ak yàlla kenn bañ caa xam dara loola kon moom moo gën am na nag xeetu ngistal boo xam ne bu làqoo làqu la bu jafee mucc la mooy jëf ju baax jëmu jëf waxiwu ko ci làmmiñam feeñalu ko ci jëfam ba lu baax la mu def daal moom yàlla doo nga tax waxiwu ko feeñalu ko ci genn wet waaye nag ci xolam moom bëgg na nit ñi yëg ko xam ko loolu ngistal la gu làqoo làqu bu ko yëgee ci boppam na ko naqaralu bu ko naqaraloo rek kenn du ko ca topp dara ndax ne woon lépp luy toq ci xolam loo xam ne gënut waaye naqari na ko rek jaanam wàcc na